unité 21. bak Sëñ Bamba. yaa mobilisé mbooloo mi. bilaay ma ne yow yaay kan. caatu parcelle. yaay caatu parcelle. waaw waaw waaw parcelle gépp yaay caat mi. bilaay waaw yaa mobilisé lii. waaw maa nekk xale bu ndaw léegi déranger ful bi ma xool. bilaay. waaye caatu parcelle waaye. waaye caatu parcelle waaye moo ngi déranger waaye. Seex. booy bi champion tey loo indi loo ñu indi tey. lu may indi tey. lu gis bëre. bëre bu naaw. nañu nag gis xeex. si moom la. adversaire bi nga bëree xam nga ko. non gis nañ xeex ak man sax. lu tax. bilaay wallaay ah, amul fit. amul fit amul fit. ko ci géej bi nga ne amul fit. kii bu taxawee. bilaay wallaay mu doog mu daanu. jërëjëf taal ci paase. waaw kii mooy président Cheikh Niane. kii mooy président bu Lamsar di nit koo xam ne gis nañ ni mu jàppalee xale yi ni muy dimbalee xale yi waaye li muy jàmbalee askanu làmb waaye ñu koy félicité di ko ñaanal jàmm per maa ngi lay nuyu. waaw mi lay fay fallu di sant yàlla julli ci yonent di sant sunu ñaari waajur di ñaan yàlla yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi li nga xam ne mooy sunu sport national muy làmb yàlla gën ci teg loxoom ndax. Euh, métier la moo xamante ne neen xale yu bari ci lañ def seen yaakaar kon lépp lu nga xamante ni def nañ ko ci ci lu baax mbaa ñu wax ko ci rek su kënee jëm kanam rek réew mi dina gën a jëm kanam. est-ce mu ngi ja mu ngi bàyyi xel xale yi nga xam ne dañoo jël seen yaakaar def ko ci làmb en tant que président bu Lamsar ah tey tey tey tey lan ngay wax ndaw ñi lan ngay wax promoteur yi nga xam ne ñoo war a jàppale xale yi nga xam ne ñoo jël seen yaakaar def ko ci làmb. waa mais loolu ñoo ñu avant ma leen di wax état laay njëkk a wax ñu mën a jàppale promoteurs yi. jàppale bi ñu leen di jàppale mooy defe naa ni wax ak société nationale yi fi nekk ñu mën a sponsoriser promoteurs yi promoteurs yi mën a génn pour tëgg xale yi su ko defee tamit promoteurs yi lu ñu liggéey ñun lañ ko liggéeyal ñun tamit lu ñu liggéey réew mi lañ ko liggéeyal parce que à chaque fois du ma tàggoo ak di ko wax ARELS bii ma jiite 152 écoles de 152 écoles de lutte ak écurie ñoo ci ne école de lutte ak écurie boo ci dem fekk fa 80 lutteurs loolu boo ko xoolee ay 13 mille et quelques personnes lañ 13 mille et quelques personnes nag fépp fu ñu nekk état war na koy gestu di xool ñi nga xamante ne nii nag aussi ña nga cay nekk aussi di leen sonn di ca sonn ñu xool lan lañ gën a yittewoo pour ñu jàppale leen parce que jàppale ndaw ñi ci lamb ji bokk na ci jàppale réew mi gën dina yokk euh, emploi di emploi wu jeunes dina yokk lépp kon làmb lépp luñ ci def rek doyut te ñi ci nekk ay dirigeants ñu mel ni ñun dem nañ ba ñu ngi ciy bëgg a sonn promoteurs yi aussi ñu ngi ciy bëgg a sonn kon nag maa ngi lancé un appel ci état du Sénégal ñu seet luñ gën a mën a yokk pour jàppale ko lamb. mais Cité Lac de Guiers amagul date. waa Cité Lac de Guiers amagul date mais loolu datam yomb na combat la boo xamante ne ni ñëpp a koy xaar. ñëpp a koy xoolee di ko gisee ci benn côté waaye nag yàlla nañ ci yàlla yóbboo jàmm ba saison bi tijji jàpp naa ne bu saison bi tijjee promoteur bi su demee dina am date dat bi sax ñun am na dar yu ñuy jot a déey mais nag bëggoguñ ko wax ci média bi mais jaakaar nañ daal. mais mais war nga ma see mosal tuuti. non non non en tout cas am na lu ñu retenir ñun ba teg ci suñu tànk. pour ñu mën a fexe ba suñu préparation ñu mën ko commencé ci heure bi ñu ko bëggee mën ko jeexal ci heure bi ñu ko bëggee mais nag comme promoteur bi waxagut ti tijjeegut nañ ko. mais booy bi day voyage wala du voyage. en tout cas lépp ñun ñu ngi ciy xalaat lépp lépp daal ñu ngi. mais père am ngeen combat. waaw am nañ combat mais combat nag boo xamante ne nii fa ni nit ñi séentoo ak ñu fi ñu ko séentoo demee wut noonu. combat la boo xamante ne nii yéen yàlla nañ ci yàlla yóbboo jàmm. yàlla la yàlla doon jàmm amiin. waaw maa lay fay champion. xoolal caméra bi. Ndiol Walo lan la. ah la nga tiit wala lan la. man ma tiit si làmb. man du si làmb. xam nga adversaire bi ngay bëri. lijjantiwu ma ko sax. lijjantiwu ma ko sax. lijjantiwoo ko ba pare nga dem fee di géem ak moom. waaw dafa am sens. dafa am sens dafa loo ko indi. bàyyi ba si kanam bu ñu doon nga de. bàyyi ba kanam bu ñu doon lu yam ko. rendez kanam rendez-vous lan moo fay am si xeex a fay am. rendez-vous si lan moo lépp loo xalaat da ngay bële. rendez ci kanam Cheikh. Ndeysaan ñoo ngi takk ngemb li quatrième combat de la soirée mbokk yi. ñaari xale yi dañoo am jom kenn ku si nekk si ñoom ñaar bugg ta daanu waaye xoolal tigre xoolal tigre sa ginnaaw moo ngay dongali tigre la ngay dongali oh. non bis bi journée Pape Thialis ñaari xale yaa ngi si digg géew bi dooloon dóor jàppan ñoom ñaar ñoom ñaar dañuy xeex rek waaye bëri amul dañuy xeex rek door pourtant booy yi dañuy door dóor yi dal de Ouzin nuyu naa la Ouzin lamb ji arbitre atte na kan jox victoire borom lu vert li wala borom gemb la am na ndam félicité ko waaw noonu la. Abou Sow DG Abou Sow a ngi noonu ah eh allah da ngay daw rek alaaji a ngi noonu mafia tarkinda baa ngi noonu gaa yaa noonu oh oh ceer a ngi noonu alaaji a noonu mais gaa yaa noonu mais Baye Fall ne ñële ay jàmbaar la ñële ñooy topp yalmin bi ñee ñooy topp borom bëkk bi bëkk bi ñee ñooy xale yi nga xam si ne dañuy jël seen lépp di ko def ci làmb ñee ñooy xale yi nga xam ne ay jàmbaar lañu. waa mais DG Abou Sow DG mais DG jàmbaar yaa ngi eh, mbër mbër tey loo indi. waaw indi. mi. waaw maa ko indi de. waa Soujaan waa kenn Ndiaye loo fépp daal. yëgalal mbooloo bi yëgalal public. lu ngeen ma def ko lu wax ma def ko barke yàlla. ñoom la ñu bëgg. xam nga ñii lu ñu bëgg. ndam la ñu bëgg. dag leen ko bëgg loolu laa bëgg a def. Ah? bu soobee yëgalal ñu dem nga yëngal. waaw waaw wax nga daga. yëgalal public noonu. ñii ñan la. ñoom bu waay waa dëkk ba. waa fa. fii la waa dëkk ba. ba dëkk. nii rek laay ma kenn. samay dërën lañ ñii xool ñii samay dërën lañ ñii nga bëgg ñii ñoo toog may rey sama bopp ñii nga ñii laa bëgg ñii ñoo ma bëgg ñii nga bëgg billahi wala ñii rek ñoo la tax ngay rey sama bopp bu ma keneen ñoom rek laa yëgalal ñii waay billahi wala waaw waaw waaw waaw waaw waaw Cheikh Cheikh xale bi ndaanaan la na ko làmb bàyyi xel ndax boo gisee xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di ay xale yoo xam ne ay ndaanaan lañ dañoo bëgg làmb waaye di ay xale yoo xam si nii lépp la ñuy boole di ko def si làmb di ay xale yoo xam si ni gis nga ni nga xam ne ñoom ñoo mel si làmb waaye ay xale leen yoo xam si ni war nañ leen a bàyyi xel bu baax a baax làmb nañu dawal yërmande làmb nañu dimbali xale yi waaye làmb xasante bi bari na nañ ko wàññi caatu foonaa ngi sama ginnaaw ñu jël ko. kat si si loonee. waaw ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant nga indi dafa bari tey. non quatre combats la ñu am. mais am nga benn amagum nga benn defet waaw yàlla na yem foofu yàlla na yem foofu. yàlla waaw fa lay yem de ñett yi moom dañ koy yóbbu rek. mais sa boy bi nga lu gars caat léegi laa léegi laa doon waxtaan ak moom am na gars yi wax ak moom mais mooy xaar ba dawoon gën a defaruwaat mais man lu ma koy ñaanal mu am combat bu baax parce que il est temps mu wane boppam ndax xale bu yaru la xale bu dëggal ñaari kër sam yi la mooy grand ndongo ak man mu saax ñu ñu dëggal lañu gis nga mënoon a dem fële mais dafa ñëw toog ak ñun di saafoonteeg ñun di waxtaan ak ñun ci carrière si la ñu jógee nii di waxtaan ak moom. grand ndongo xale bi xale bi moment bi mu toll nii lan lañ ciy xaar te mu xam ne làmb dafa bokk ci làmb. kan téegër. caat caat. day moom li may wax si moom du tax mu bari ndax euh, vraiment xale la boo xam ne nangu na entraîné euh, xam na fi muy taxaw léegi li des mooy moromam yi lan lan la lan lu tax nanguwuñ ko jël su ko moromam yi jëlee barke alxuraan fépp bu mbërëm teg tànk dina fa teg tànk. jërëjëf. alaaji Fallou bu leer. ci loolee. taw feex lépp lépp jàmm. naas. jaadu Fora ngemb li. non day tooy léegi. ñu ngi wax ay combat mais combat demee la ko am saison bi jeex na. su ma juumul la dimanche bi ñëw bi soobu lay tëj. lay lay tëj. waaw di ñaan waaw ñun suñu bëri ci am combat sûrement tey yàlla nañu yàlla may ndam di ñaanal lii la dimanche yàlla na ko yàlla may ndam di ñaanal doomu jaamu gën moom it semaine prochaine bi yàlla na ko yàlla may ndam képp ko am combat dëkk jaamu ak booy Zos ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla na ñu ngi si affaire bu baax Fall affaire leer léegi. léegi léegi mu leer barki maam Seydou. da ngaa bokk ci lam. non da nga bokk xale boo xam da ngaa bokk ci lam. dëgg la xam nañ loolu tey. waratoo ju. dëgg la waaw erreur deux fois mënul ne. mënul ne kenn lañ lay pardonné mais beneen kenn du la ko pardonné. jërëjëf mais yàlla baax na. mais xoolal Tigre mais xoolal Tigre li muy déranger mais xoolal Tigre Cheikh li muy déranger. Tigre waa Tigre li yëpp yow la mais Tigre lii lan la lii waaw ñii xama rek waaru set biya fara jàmm gën xama jak sam-sam ñëpp ñëpp ginnaaw raay ñëpp est xam nga ne sa yar may lii billaahi billaahi bi see xamee sa yar moo la may lii waaw noo la demee nag parce que ñëpp ñëpp loolu la ñuy wax sa yar moo la may lii dëgg la dëgg la Fallou barke Serigne Bamba ñii ñëpp ñu fi ñëw deful leen dara lu tax ñu ñëw fi quoi mais xëy na daam luñu gis ñun moo tax ñu topp ñu quoi waaw di ñaan yàlla xama nga préparé nañ ko ak suñuy mbokk di ñan yàlla yàlla mooy ñu ndam seddu guy barke si naam waaw tey xam nga samay mbokk ñoo ma sas ñu liggéey lu métti gars yi teg ñu lu méttee méttee métti incha allah si kanam tuuti ñu war kaa wane quoi. Ah. bu soobee yàlla. jeex na si kanam si kanam. si kanam ñu tuus incha allah. ngembulu moo tent bopp Ibu Afia. ngemboo ngembulu weex li à gauche. caatu parcelle ngembal la ko si à Ibu eh, Afia mi teel naa xàcc de. Ibu Afia caatu parcelle. caatu parcelle ay waa këram toog jël na ko. caatu jël na dóor. door door door door door waaye Ibou Afia gi dajale faq faq lu muy bëgg a def faq lu muy bëgg a def lu muy bëgg a def e Ibou Afia caatu parcelle daan nañ la daan nañu la caatu parcelle Ibou Afia daan na la jël bu rëy jugal muñal nga jóg caatu parcelle jógal àdduna amul solo booy ñëw muy neex des fois da ngay dem muy naqari loolu ci àdduna la bokk ci làmb la bokk jarul tëdd jugal rek. maa ngi lay. eh Fall mon frère waaye ñu ngi lay. ci loolu sant yàlla rek xanaa ak. da ngaa ñëwaat arène nationale yow amateur nga. waaw man amateur laa. ba pare gunge waala xale yi nga xamante ne dañoo dëkk jàmm gën di bëre waaw. en tant que nga yor président fondation Tarkinda social dimanche nga war a joo nga war a xarafal xale yu bari euh, nga mën nga ñoo wax programme waaw Fall waaw bu ñu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ah di julli suñuy julli ci yonentam bu tedd bi ah di nuyu suñuy waajur yëpp ah. di leen xamal ne comme ni nga ko expliquer léegi rek dimanche dañoo am euh, benn euh, don de comme niñ koy waxee rek jongal ay xale incha allahu rabbi le 20 août bii la. ñu ngi koy defee ci infirmière militaire yi ci camp bi waaw ñu ci woo bépp bon volonté rek ku ñu ci mën a jàppale ki nga xamante ne ni jóg nga pour social parce que tar mais woo ci Saliou bu C50. Saliou bu. bu c waaw ñu ngi ciy woo Saliou bu c cinquante ah ak bépp bon volonté boo xamante ne nii rek bëgg nga ci jàpp ndax lu baax la loo xamante ne nii xale yi soxla nañ ko fi mu toll nii te boo xoolee ñun Sénégal ci réewum. jàppalante lañ réewum dimbalante lañ foog ñuy dimbalante parce que tarkindaa social yu mel noonu rek moo ko tax a jóg te incha allah dimanche képp ku ñu soxla bëgg nañ nga ñëw nga jàppale ñu si incha allah rabbi à partir de 6 heures du matin la ba 11 heures incha allah. à partir de 6 heures du matin ba 11 heures. waaw. fépp fu xale nekk ci Sénégal rek bu ñëwee dinañ ko accueillir defal ko lépp lu ci war lépp lu ci war rek ñun ñoo koy def soxla nga indi dara indil xale bi soo ñëw nga indaale sa carte dinañ la ko defaral volontairement incha allah. an sa xarit Dumbuya. sama xarit Dumbuya ni sama wet moo. moom moo waaw mu ngi nii moom moom du feeñ télé moo tax du ma ko jël. non mon moom. waaju baax ah, waaw lu wér lu wér. waaju baax loo wax ci moom rek am na lu des. Ah, dañ koy ñaanal waaw yàlla na yàlla ku baax fanam. moom bu la gisul dina la woo. dina la nemmeeku. wér na waaw moom ku baax la Dumbuya. non nit ku reconnaissant la nit. moom ndax du génn télé du feeñ. déedéet bugg ko buggul loolu buggul ah. loolu buggul woo. nañ ko ñaanal yàlla rek yàlla jàppale ko. Siteu papa Siteu la daggeen foo leen ci toll. ah ñu ngi ci de waaw combat yaa ngi soog a tudd nag li li jar a laaj combat baa ngi noonu ñi ngi koy préparé ci tous les plans waaw. yàlla nañ ci yàlla defal ndam lu sedd guy guy guy guy guy guy loolu rek la ñuy ñaan. yàlla mi am ndam yàlla ñu may ndam lu sedd guy ci kaw la. dëgg Sénégal boo laajee boo leen dékkee seen micro dañ naan la la dëgg mooy adversaire bu naqaree daan adversaire bu naqaree daan loolu noo leen koy waajee. waaw loolu loolu loolu rek sas la ci làmb suñ nee diw ak diw ñu ne diw mën diw loolu rek sas la ci mbër mi nga xamante ne nii. yow yow yow yow lañ naan yow la ñu mën a loolu dafa loolu dafa yokk sas bu mag ci mbër xam nga diw dalaa mën rek loolu jar naa liggéey ba dee moo tax fi mu toll nii Siteu lu mu mën a am ci àdduna liggéey rek a ko war te mu ngi ci nag bu baax a baax. favori bépp dañ koo jël jox ko la dageer bàyyi leen. waaw loolu baax na ñun bëgg nañ loolu. ndax ñun en général ku ñuy bëre rek du ñu mës a doon favori ñun xamaguñ ñu nañ xaar ba ci kanam fii ak 2 3 combats yàlla ñu may ndam ci kaw la dageer mooy gerte Mame Fall yi. Mame Fall waaw. moom nga indi. moom laa indi waaw. ci loo ne. maa rek. ah dégg naa da daw rek. da ngay daw rek aw rek laay taxaw. arrêt cité rek. kese am ngeen combat rek. loolu mooy combat. la déggee. waay bàyyi ma nga naan waay bàyyi leen loolu waay. parce que ma nga naan ma combat. bopp bu rëy dong la ñuy jaay bopp. kese amul leneen lu ñuy. Eh, doole ji doole ji. moom nee na daal moom maa ngi muy wax si ay interview ne fu si taxaw dina ko fekk. moom loolu lay wax fu Siteu taxaw dina ko fekk ba bis ba xam ni bési góoroo koy bay. di ngeen indi doole. baax na Fallou ba bis ba rek incha allah waaw ba rek incha allah. jërëjëf jaajëf Fallou. Das Shoes. daal yi may sol kii moo ma koy jox. borom leeral di. Das Shoes dégg naa la ci la de. lépp jàmm. lépp jàmm. lépp mi ni mu dugg see baaxul. ndeysaan waaw foo dafa taar rek dafa tardé yee mais xam naa lu nga wax ne xam naa la dégluwul tamit quoi yee ndax moom est lu nga wax si ngay bëre moom bërewul loolu da nga ne premier combat lay bëre mu jàppoon ne septième combat lay bëre te loolu tamit man xamoon naa ne mënul ne. kon erreur de ménage la. erreur erreur de ménage la erreur de ménage. waaye ma jëm waaw waaw tiigit waaw tiigit. ma ñëw yal yàlla may ndam. tey noo leen ko indee. moom papa la may wax maanaam ñoom ñëpp noonu lañ mel si man su ma amee combat day mel ni dañoo am combat te dañoo neex a digal moom moo tax mënut a mel mënut a ñàkk parce que tamit samay mag ni lañ ma doon defal foofu ma defal leen ko mënut a ñàkk su nekkee man maa nekk mag si équipe bi mënul ñàkk ku teew la ma ñëw teewal ko su amul combat loolu la demee. sànq sa benn poulain daanam boo ñëw ci yow nga yuux zibilé. waaw kon am ngeen benn victoire moo dese leen ñaar. dama ko samp ba mu bëgg di ñaanal nag suma rakk jooju Fodé nga xam ne dafa ñàkk premier combat bi te wax na ko làmb noonu la. waaw looloo problème bi xam nga dañoo dafa calculé woon ne le huitième combat lay bëree moom moo tax mu tardé dañ ko calculé woon communication moo des quoi. waaw mais ñoom. du erreur de ménager. ah du erreur de ménager. non du erreur de ménager mal entente lay doon rek waaw du mal entente lay doon waaw mooy du erreur de ménager. da nga ñëw instant. waaw damaa waaw. seetaan. tigre ko ànd tigre. Tigre. waaw yéen a ko moom mi indi ko. waaw bu leer. Ah? waaw lan ngeen ko waajee. jàmm gën dañuy sot quoi. la ñu ñoom ñoom wax ne rek waay. lu waay yéene boobam dem la yéene moroom quoi noonu la demee moo bu ndaw sa buy bëri ñëpp a ñëw yaa ngi dañoo bàyyi liggéey ñëw yaa ma gën a xam. électrique c'est deux roues la. waaw loolu dafa leer deux la fanaan. maa ngi lay sëñ Fallou maa lay fay. ci na nga coono. da nga ñëw tey jël si ndam li ko waa Diamaguène ñoo moom lamb chaque jour mu wax ko Diamaguène ñooy lamb nañu nañu bàyyi xel ko waa te xajal ñu te. mais yéen a moom lamb mais yar yar gi ci yar gi war a am ci Diamaguène amu ci dafa des parce que dafa des ngeen di waxtaan ak ndaw ñi ci lamb parce que boo leen moomee lamb te wane woon nañu yar lamb du yar. waaw li nga wax man ku lamb tax a jóg na yoo xam ne doo ci dox te tamit dafa am ñoo xam ne ñooy rax waay ñoo Diamaguène saltal deru mais soo gisee ku dëkk jàmm gan xam ne liggéey la xam bëgg boppam ñëw dund ambiance dund si jàmm ko waa ñibbi. jërëjëf waaw. maa ngi leen di daan ñibbi rek bëre rek daan ñibbi. bëre rek daan dem ñibbi. jërëjëf. Mbar maa ngi lay nuyu. waaw ah, fay naa la fa lay indee champion. waa si dal ci ndam rek. waaw pare na moom suñu mag la suñu patron la yàlla ko yàlla suturaal may ko ndam. jërëjëf sëñ Fallou. Fallou. ñu jaar lu gaay di xaar Max Mbargane waa ñu ngi si di waaj. am nga combat. amaguma maa ngi déglu rek nekk si lu ma war a nekk. barke maam Cheikh Rafal. yaa ngi xaar waaw waaw maa ngi xaar rek. mais doxuñu sa yàgg sa waa waaw ñu ngi dox moom ñu ngi dox. yaakaar bari na am rek bëgguma tudd tur sax muy waaw muy loolu noonu. mu ne da nga koo pare. waaw bilaay la ñuy wax de. nekk rek. barke maam Cheikh Rafal. yàlla waxul kenn dara. jërëjëf day teew retour bi day ñëw. Touba. Daouda Sadio da nga bokk ci làmb. waaw loolu yàlla moo ko def. yàlla dafa def nga bokk ci xale yi nga xam ne dañoo nekk ci yoonu làmb. mais Daouda Sadio. waaw sa gëj a bëri lan la. waaw instant bii euh, la ñu ngi may wax ay làmb la war naa mën a bëre mais ñu may wax duñ samay naataangoo. comme ñan. comme ay booy parcelle boobu damay fàtte nu mu tudd. tan ko waxoon moo yille lañ ko doon wax far yille jëlu ko. ñu ma koy wax proposé nañ ma yoon yoon mais soxla moo ko maag maaji bi sori woon nañ si mais par la suite amul woon moo tax promoteur dugal marche arrière mais sant yàlla quoi man maa ngi sama entraînement laa ko yaa ngi tërën bu baax a baax. waaw maa baax a baax a baax. préparé saison déwén. waaw di sant yàlla quoi xëy na li la borom nam man moo tax kon sant yàlla la. jërëjëf waaw jaayëf Fa. ci géew bi moo geet moom la ñu jàkkaar lool moo ñuul noonu cee moo ñu wan ginnaaw mbokk yi fii ci arène nationale arbitre bi laaj na ay juge am ba xam pare nañu diggante Dieng ak Mo Gates am na lu muy def am na lu muy def Mo am na lu muy wax Mo Gates ak Dieng Mo ak Dieng mbokk yi fii ci arène national Thié moo ñu wan ginnaaw moget lañuy ñu jàkkaar lool mbokk yi écrit Lamsar moget Thié ak Moguette mbokk yi Thié ak Moguette mbokk yi Thié jël na ko Thié jël na ko aywa Moguette daan na ko Moguette daan jël bee gaaw Thié. waaw na ci dugg na ci yàlla yi daan na yëkkati na ko Moguette. Assurance moo Moget maa ngi lay nuyu. maa ngi ñëwal ci ni nga taxawal. ñun mbër la ñu am mbër ñëwal ci ni maa ngi lay bëgg Fallou dafa am lu ma tax a jóg waaw wax naa lu ma tax a jóg. leeralal Sénégalais nañ ko leeral. leeralal Sénégalais walaat nañ ko leeral Fallou. mais nag ni nga bëree ñëwal oh. moo ngi dem ci ay fansam. moo ngi dem ci ay nitam. Moget dafa bëgg a Cheikh lamba ngi nii lamba ngi noonu lamba ngi noonu oh xale baa ngi noonu lamba ngi lamba ngi rakku Siteu la xale bi daan rakku Siteu la moo rakku Siteu la oh oh, oh ngi nii mbokk yi waaye bu kal nijaay nijaay ba <laughs> nijaay baal ki ngay bëreel doy na kii doy na maam Fallou lu xew. fees Fallou xoolal ma fees. Fallou ñu ne tax ñoo jóg nañ ñu jox pongal yi. amul arrêt. maam Fally waaw ndeysaan moo gét moo lan la moo gét lu tax ngay jooy na lu muy jooy fa ndeysaan ndeysaan ndeysaan tey moo am ndam moo gét maa yaay ma bokk benn yaay ba jur mais gis nga ko gisul kenn dafa wéet lu la dëgg ko ci combat bi sacrifice sama ndax moom loolu moom a jëloo. maanaam dañ leen xeex ci combat bi lu ne wax ñu wax leen lu ne. moo du question xeex dañoo gisul mbokk yi gisul kenn. amul benn mbokkam bu mu gis. tarkindaa yi waa Mbour lañ fi gis. ana Siteu. Siteu kooku yàlla ko yàlla fay xolam. kooku moo taxaw kii teeku ci loxom ñii waa jàmm gën ñoo fi ne mais yàlla baax na li ci kanam rawuli bët. jërëjëf. bi def leen ko ndeysaan ndeysaan oh. maa lay fayal. ci loolu TV sant ak mu tey booy bi ngay am na ndam muy moo gën Mame Faly ñun ragaluñ dara ñun ku topp sunu ginnaaw sàkku luñ doon da ngay da kenn du ko bañ. yaa pimpe ngi nii topp si la baa ngi nii borom sikaab mbaaw ragalul dara si àdduna. man du tapet fi ma juddoo waaw fi ma juddoo la jàmm ngeen Sicap Mbao moo tax moo tax mënu ma nekk ragal su ma ragal yàlla bu ma gisee Serigne Touba. mais da ngay daw rek amoo arrêt. benn arrêt lañ am muy arrêt Siteu. ban arrêt la. mooy jàmm ngeen Sicap Mbao. arrêt Siteu. arrêt Siteu. fu oto bu daw avion bu daw fa ngay wàcc fa ngay gaaree jag privé yi fa la ñuy freiné. Siteu la daggee. ma ne ñun kooku déggoo ma ne man du ma wax si boobu noonu. paa bu màgget boobu la daggee. paa ponkal moom. paa bu parce que sëñ Touba xajul ñu si kawam Lac de Guiers mënuñu téye ne ko mu xajal ñu jàll dañuy dem. Ndiol indi ngeen double Mo Gates ngeen Mo Gates mu ndam. mbër mi waaw yàlla su def lu suudur rek. noo gaa yi di jël la jarbaat si kër gi waaw. lépp lu ñu meroon rek man am dina ma ko fajal moom. la loo meroon ci làmb rek dina la ko fajal. waaw kooku mooy loolu la. dama waaw yàlla baax na nañ dawal rek li si kanam raw bon. waaye billaay ñu manga sant alhamdulilah. billaay sant Serigne Touba rek. tey dafa mel tey jàmm gën ngi neex waaw noonu la demee caat tarkindaay dañ ko nëbboon de. billaay tarkindaay nañ ko bàyyi xel moo gën làmb nañ ko bàyyi xel instant yi nag promoteurs yi ñëw leen ubbil nañ leen port yi sama doomu ndey sama rak caar fora. kii noo xam ne damaa génnoon. maa ngi wax Laurent moo ma gaan saa bi woo ñaari yoon mooy. Laurent moo ma woo ne ma liste naa ko du ñëw. yaa ma woo ne ma Liss Ndiago du ñëw. waaw daa génnoon moo moo tax ma ne la du ñëw ndax fu mu demoon quoi heure bi du ko ko may bu ñëwoon sax émission bi du am. bilaa saa gaan bi mooy ñaari yoon war na Seydina Mohamed ak combat combat nu mu passé nii ak génn yu bëri yi xamul wax di lu bëri na ko war a montali quoi loolu moo tax mais barki Seydina Mohamed dinaa jàpp jour ñëw ba foofu ñu def en direct. si ay ñaan katam. fan la dellu si ay ñaan doo dem di leen waa di kontaan si ñoom. di leen félicité waaw noonu la demee moo tax. quoi ñaankat yi fu ñu dëkk. dëkk ba yëpp. dëkk ba. fépp fu am dëkk rek ñun dem nañ fa. fépp fu am ñaankat dem. ah ñun ay doomu dëkk bi lañ fépp la ñuy dem. bari sëñ Fallou. la fin góor a bàyyi ma sey dafa war a xarafal xale yu bari ci jàmm gën si kàmbaaw ak ci réew mi langa nga ciy wax. waaw loolu dañ koy rafetlu rek. wóor na alxuraan dañ koy rafet lu baa di ko jaajëfal parce que tamit waaw loolu moom lu rafet la ko waaw di ko ñaanal yàlla ko yàlla yokk quoi voilà. Liss Ndiago foo jëm. waaw fu ma jëm mooy maanaam guy gi guy gi guy gi bu gëjawaay laa bëgg bëral quoi guy gi bu mag wala sarko jën kere ku daan mu ñëw ñu bëre. ah voilà. yow li des si làmb warootoo juum. waaw moo maanaam lu leer rek. waaw dinaa entraîner dinaa indi doole nañ ma jox si maanaam samay mag ñi si kaw ma bëre man. waaw bëri naa samay morom ñëpp. commencé nga sama ginnaaw commencé naa. depuis kañ. kañ démb rek commencé naa xaw ma barki démb. war na yàlla. billaay nañ ma jàppale rek jox ma mag ay jën kay rek Zarko ku si daan walla guy gi. waaw ñu may ma sax ma bëri quoi. Ada Fass. Ada Zos. foofu ku fa daan baax na ci yow de. waaw ba tey. bu ma soxla Ada Fass Zos ku fa daan. war na yàlla Malaw Seras mu ngi taxaw. waaw waaw man làmb laa fi waaw. ngay la maalaw bu bëggee bëre man deg lay bëreel. kii daa xool maalaw. maalaw seen. maa ngi dégg miy wax. li muy wax. ay affaire religieuses ak yooyu am na bu ñu nax nit ñi. Ibou Afia maa ngi moom mooy làmb te tëkkuwuma ko soxlawuma ko mais daal laa laa laake bu mu nax ay na ñëw ñu bëre ñooy mayante xaalis moo gan gi yooyu noonu nañ ko bàyyi ko. gan gi ci koom sa kaw. ku ma daan ku ma daan boo ma daanee par force damay bëre moom mais daan ma moo jafe. lu tax fi moo war a ñëw ñu bëre tëquwuma ko soxlaw ma maa gën a aju. barki leeru alxuraan maa ko gën a mën a mobiliser lu ma indi di ko indi man la gars yi war wër ci esaat comprendre nga mais tëquwuma ko daal laal laa laake maa ngi moom mooy làmb. ndax warul laal lis. bu dul li mais am na du waxu nit. lis na yow ñu bëri loolu yennul maanaa. du du bis quoi rafetul sax. na nekk yoonam rek na ñëw ñu rayante maak moom waaw daa loo xamante ne ni règlement de compte la buñ bëree ngeen koy xam. dafa ma règlement de compte bu am ci biir. leen mu war a wone barki allah ji fàllu lu si man day nelaw te yeewoogul. Liss dama bëgg gis yow Laurent dama gis sa wax yëpp da jiital sëñ Fallou lan la. waaw mais ñun galas moo tax ñuy naan galas. bar sëñ Bamba. neex nañ fa sëñ Fallou génne nañu nga ne. waaw bu ne dugg nañ ci sëñ Fallou génnee ñu ci. wóor na alxuraan. walla ñun ay njaaw lañ mais dama bëgg sëñ Fallou. côté sëñ Fallou de ka fa ne. mbokk yi lii làmb da war a jàppale. xamul ndax may làmb da leen a war a jàppale. ay xale lañu ay jàmbaar lañu. da leen làmb jàppale waaye tamit ñoom nañu jàppale seen bopp bañ a déglu kenn. Boy ñaa mu ngi waree ñàgg Tigre Lamsaar mbokk yi diggante Tigre Junior ak Boy Niang arbitre bi ka wax na ak ñaari mbër yi sifflé na arbitre bi sifflé mbokk yi diggante Tigre ak Boy Niang mbokk journée boo xam ne Leewtoo production moo ñu fi woo Saliou borom C50 maa ngi lay nuyu Saliou borom C50 maa ngi lay nuyu gis nañu ndigal li nga xam si ni Baye Karim joxe na ko ci C50 Saliou yàlla ñu yàlla defal jàmm mbokk yi ñaa door na ñaa door na. ñaa door na léegi ñaa door na dafa bëgg a xeex ak moom Tigre mbaa amoo client boo dul ñaa mbaa amoo client boo dul ñàkkale eh ñaa door na waaye Tigre a ngi dox ñu ngi xeex mbaa door mu daanu am Tigre Junior ak ñaa Tigui Junior ñaa door door Tigui Junior ñaa door door door Tigui Junior Tigui Junior ñaa door oh door na ko mu daanu oh oh médecin yi dem leen waaye yéen kii moo ngi daanu yéen ñëpp ngeen ñëw ñaa doon na ko mu daanu oh.